waaye neex na it ba ko àdduna si yëpp gërëm yi in life sooy doxal kenn kenn du lay wéy waaye soo fi soo fi génnee génnee àdduna li nga def nii dafa war àdduna dafa war war ah, alaaji ñu xamee ko biri biri biri alu alu commentateur moo ko jox neen ñu war a xam biri li biri ci football biri biri ci football mooy alu njaay alu alu Africa Eh, eh, communauté to best communauté to at the time eh, sénégalais la moom bi dañ Gambia 11 ak Sénégal dafa dribble 11 yi yëpp ni moo dribble biiri doree ko ci baag ku ñëw mu mu nax la ku ñëw mu nax la ku mu dribble la seen goalkeeper bi lob woon waaye ni mu doon ni mu moom dafa bit offside bi por exemple mu ku ñëw rek mu dribble gars yi di kobaro ku ñëw mu dribble la gis góola bi génn rek mu mu lob ko alu moo moo tax alu di commentateur moo tax biri biri biri biri soo ñu ooyee ko biri biri waaye biiri bii boobu local name la house name la boobu bi mu nekkee xale boobu rek laay wax boobu du du ma ko tooñ naka bés bi suma suma xol neexut waaye invitation bii nii ak interview bii nii dafa nécessaire pour youngsters yi unfortunately suñ suñ seti football jeex na ci ñoom Eh, because eh, eh, <coughs> present equipments football in predetermined touch touch touch touch it's not creative so in comparison ci biir yi gat moom plé na yëpp xam Africa muy Europe muy muy muy Asia muy Asia kii world international la and it's a very big gift not only to the family of Biri uh, gift bi pour Africa la Asia ak Europe maa ngi fàttaliku Pele Pele ñëw na ba ñëw na Dakar gars yi dañ jàlla seetaan yi waaye ñu introduce ko mu yaa ngi gis ne ndeke Pelé dégg na xam na dara ci biir yi yes nga mu ngi Sénégal de waaye Pelé dafa dafa biñ koo jox biir yi bi moo sekkaana biir yi amin amin mu mu mu mu dëgëral rek bi bi ñëwee Banjul ma ma ma ma ne diir yi yow yow lu la man su ma oh, gis naa laa pele yaa ngi ko téye nii waaw da nga waroon a oo caméraman bi mu moom moom moom bëggut xumbal xamut yooyu noonu du dee seet sax dala waaye pomir dafa reetaan loo diir soo amee euh, euh, añu feebar <laughs> nga seetaan ci football ah feebar yooyu dafaa gis am na ñoo xam ne feebaree dem di reetaan you know I mean it's a cure la loolu lañ amatu fi mu nekk nii it's a moo moo tax in comparison biir yi dañ ko war a di every day dañ war a di wax biir yi yéen da ngeen ko war a future every weekend sports ngeen ngeen ngeen fii co ko soo soo leen amee film si dëgg la du daan keep waaye am nañ am nañ am nañ akaaj kër gi am na akaaj ak ñoom seen bi ñeen bugg di ko génnee balaa any match international ak ñim daan football la ñoom seen football la waa you ah man day man suma suma mën naa ko palaale bugguma woon na wax loolu eh, understand maa ko palaale you know so funnily ba moo ba moo lifi na yooyu mu ne ma mu ne mu foog ne xam nga parallèle lifi bi mu ne ko xam nga dañ muur ndaw si understand mu ne mu ne ko ramu ramu du fii fii la understand nga loolu laa ko doon tooñi waaye xam nga tey du bési tooñ you know man maa ngi wax from the bottom of my heart you know nitam yi ku noonu waaye façon yi dee yii waaye façon yi dee yii ah doy na waar waaw koo xam dañ ko war a nampa yuut si dañ ko war a nampa e, e, yuut si jotuñ ci you know waaye Biri Njaay kañ e, moom daf ñoo wéetal ma de ma na nga xam ne fu ma gis rek foog mu tooñ ma waaye su ma gisee muy tooñante su ma gisee rek mu mel ni man maay papa mu noppi orastar mi ma tooñ ne naar e naar naar baa ngay you know loolu soo ko misee rek yow doo amati life man fi mu nekk man man naa seetaani football de fii box ba man géej naa man five years te box ba daf ma jege du ma am du dee am zil bi dangaa toog bi sa lunkali génn yow doo doo enjoy dara support bi yi mënuñoo support gars yi mënuñoo lu bari lañ ñàkka ah bii demam daal ah yal nañu eh, yal waaw ñun ñu fi des ak suñ doom yeeg ñoom suñ doom suñ doom yooyu noonu ah Gambia eh, Gambia luus na de eh, Gambia luus na lu lu bëree bëree bëri ci po because football soccer is trapattage ñi ko seetaan ñi ko play ak et eh, ñi bu ci manqué rek yoo amatuloo sports cavalerie bu ci manqué amatuloo sport football tigi soka paa bi dafa war a fees ñu am good referees dañ ñu am supporters die hard supporters ñun suñ time loolu lañ amoon die hard supporters waaye léegi ñi xamuñ luy die hard supporters yow player bi sa supporters si dañ laa support bi nga kontaan kay def loo xam ne ngay def miracle loolu la biir star of the Gambia gars yi di ko ooyee Pelé de Gambia ah, Pelé ful wool bi la de woon de du Brésil de wool bi la de ñu xëcce ko gars yi xëcce ko supporter si xëcce ko ñu ne Pelé du Gambia biri biri ah man de am naa lu ma naxar lu ma naxari tey because ñaakana harit ñaakana football partner ñaakana history